mbokki ginnaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen nuyu ci nuyoo bi gën a sell gën a baax gën a yiw te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme niñ ko waxe woon bii paase ñëwaat ak yéen ci toore alquranul karim fi rawdatil quran fi basaatinil quran fi mihraabil quran incha allah mbokk yi comme ni ma leen ko waxe woon yàlla subhanahu wa taala dañ ko war a jaamu te pour ñu jaamu ko il faut ñu xam ko te buñ ko bëggee xam il faut ñu jaar fi mu ñu jaarale ni bu ngeen fa jaaree di ngeen ma xam ñu ne ko yàlla foofu fan mu daan xool leen ci li ma bind xool leen ci li bind di ngeen xam kan mooy yàlla subhanahu wa taala mbokk yi saar wi ñu leen doon wax bi paase ni mom lañ leen di firil inshallah allah di ak yeen dank dank dank dank ba wi jeex inshallah allah modi suratul di surutun nahl sar wo xamanteni ni yalla mu ngi tudde yàmb allah akbar kon gis ngeen limu leen doon wax legi sar wi yalla mu ngi tudde lan lañuy jox lem mu am yu bare bare bare yu taxaw rek tay suñu kanam ñun julit ñi bi ci njëkk war nañoo xool yàmb nu mu mel ak lan la yor li mu ñuy jox muy lem tey ji amul kaneen ku ñu ci war a raw ñun en tant que ay jullit tey tubaab yi waruñu ñoo raw ci wàllu xam-xamu waruñu ñoo raw ci lem au contraire ñun fin na ñoo war a jël lem génne ko saytu ko di ko joxe ci alam bi yépp ci monde bi di ci génne ay garab di ci fajaate parce que lan moo tax suñu téere bii ñu gëm muy alquranul karim téere la boo xamante ni nii euh, noonu laa ko mën a tuddee machine ba wala appareil ba wala lañuy jox lem te muy yemb yàlla subhanahu wa taala daf koo tuddee aw saar te toujours dama koy wax turandoo dafa foor mbokk yi saar wi nga xamante ne nii moom la ñuy commencé tey incha allah muy nax li mu ngi wàcc makkatal mukarram makka la wàcc bokk ci saar yi fu mujjee wàcc daanaka loolu benn taxawaay la ci ñaareel bi moom mooy seizième saar boo déparé fatiha baqara ali imran nisaa yi boo ñëwee ah ibrahim xijri naxli mu nekk seizième saar waaye nag bu fekkee ci saar yi ko jiitu nga xam ne ñoo ko mag saar yi wàcc kaw asamaan yépp di ñëw ci yonent bi moom suratul naxli mii mooy soixante-neuvième saar waaw soixante-neuvième saar bi maanaa soixante-huit saar wàcc nañ ci yonent bi saa salaam moom suratul nax la muy doog a wàcc saar yu mujjee wàcc moom muy doog a wàcc mooy suratul kahfi allahu akbar suratul kahfi bi mu wàccee ba jeex ci la suratul nax li mii ñu war a jël daal di wàcc te boo xoolee sax ci kaamil bi moom nax li boo ko jeexalee isra ngay dugg dal dug li nga xamanteni mom modi moo di kahfi mbokk yi sar wi nga xamanteni ni mom modi suratul di 128 aya la waaw waaw 128 aya temeri aya ak ñaaf ko ak ñet 128 mom la yalla subhanahu wa taala tegge li nga xamanteni ni mom modi sar wi mbok yi sar wi waxtan na ci li nga xamanteni mom modi yawmal qiyam parce que dañ ko war gëm ñun tank ay julit bis dina ñëw ñu taajaat ñu daal ñuy réglé waat looloo waral ba gis nga tey jii di premier jour ci at mu bees mi nga xamante ne nii jullit ñi bàyyiwuñu sax xel yëguñu ni sax at mi jeex na fi na 31 décembre la ñuy xaar yaa ngi dégg nga war a bàyyi xel ni at yaa ngi dem. man naam sa yowmal qiyaam léegi mu ñëw yàlla bokk na ci yi nga xamante ni daf ñu koy chargé yàlla bokk na ci yi nga daf ñu koy yare moom mooy bàyyiloo ñu xel li nga xamante ni nii moom moo di yowmal qiyaam moo tax saar wii ñu war a commencé incha allah ay jàngat di ko càmbar di jël aaya yi di ko firi saar wi li mu commencé moom mooy waxi yowmal qiyaam ba mu ca jógee it kazalika moo tax ci commencement bi dana ata amrullahi fala tastaajilu te moom moo di yowmal qiyam te incha allah rabi bu ñëwee ci tafsir bi dina leer kon loolu benn la ci li nga xam ne te moom moo di saar wi lu mu waxtaane ñaareel bi saar wi waxtaan nañ ci ñu kennal yàlla ñu kennal ko gis nga kennal googu ñuy wax yàlla subhanahu wa taala rek moom moo ko yeyoo yàlla rek moom moo yeyoo kennal par exemple nga dégg ñu ne dañuy kennal diw wala diw wala diw déedéet yàlla rek la ñuy kennal. parce que moom rek mooy kenn keneen du kenn ndax keneen koo fi dul baaraam rek am na lu mu bokk ak nit ñi ak lu mu am ay may am na lu mu bokk ak nit ñi kon du kenn yàlla subhanahu wa taala nag moom bokkut ak kenn lenn kon moom mooy kenn laysa ka mithlihi shay yàlla subhanahu wa taala rek moom moo fi nekk looloo tax ci commencement saar wi moom yàlla nee na ñu kennal ko loolu bokk na ci li nga xamante ne nii saar wi waxtaane na ko mbokk yi saar wi di sóoratu naxli muy saar wi yàlla subhaanahu wa taala tudde yamb lan moo tax parce que ci biir saar wa yàlla nee na wa awxaa rabbuka ila naxli an ittaxidi min aljibaali buyuuta yàlla subhaanahu wa taala nee na ñun ñoo wax yu ñoo wax yu yamb waaw wax yu xanaa wax yu lañ koy defal ab yonent la wax yu ji ni man ma wax yu yamb kon yamb yi ay yonent lañ batu baatub wax yu dafa am ay mana dina firi yenkewal yamb yalla moko ko yenkewal bi mana moko bind ba pare mel ni sol ni yow ya demal nga dëkk ci ay montagne yamb yi montagne leen gënal ci montagne la ëpp lu dëkk waaw montagne dëkk bu la ëpp ay montagne moo lay ëpp ay yamb parce que ñoom barab la bam te ne yàlla daf koo defaraale pour ñoom ñu cay dëkk loolu nag firiwul ni dëkk ba am ay montagne daa am yemb dégg ngeen loolu benn la ci waaye yàlla subhaanahu wa taala saar wii nga xam te moom moo di suuratu naxli am na ci yenn waroo xam-xam yu ko tuddee suuratu ni'am saaru xéewal looloo waral ñu jël saar wi parce que gi ngeen saar wi allahu akbar mbokk yi li ci nekk ci ay xéewal kenn xamul nu mu toll te dinañ ci ñëw benn par benn te dinañ ko détaillé dinañ ko léral duñ ci tit duñ ci ragal ab njóobeen bu ñu ciy sànni xeer wala dara déedéet parce que dafa am loo xamante il faut mu jàll moom mooy lan yàlla moom ci jëmmi boppam moom yàlla moo détaillé ci saar wi kon man bu ma toog di ko firi di am lu may bàyyi xel dama leen koy leeralal ba mu leer yàlla yoo xamante ay xéewal la ay bànneex la yoo xamante ni wax nañ ko ci saar wi nee naa la tudd nañ ko sóoratu Naam muy saaru xéewal saaru bànneex xoolal bokk na ci xéewal yi ñu ci yàlla defal yàlla subhaanahu wa taala nee na maa leen may ay mala maa leen may xar ngeen di tëbaski di ci ngénte yàlla subhaanahu wa taala nee na maa leen may ay bëy maa leen may nag maa leen may gileem mu leen di gàddul pariensaa yi barab ah, bagage diis yi ngeen di tukki dëkk ak dëkk su ma leen ko may loon da ngeen koy yenu da di sonn yàlla nee na maa leen ko may ba pare nag li gën a yéeme mu daan ni maa leen may ay fas maa leen may ay mbaam maa leen may ay berkelle yii yëpp yàlla wax na ko ci saar bi berkelle mooy doomu fas ak mbaam yàlla nee na maa leen ko may ba pare li gën a yéeme yàlla daan ne nag ma daal di bindaat yeneen yu ngeen xamul ci jamano jooja muy wàcc ca makkatal mukarram yonent bi di wax ak saxaaba ya yi yàlla naan leen te dinaa bindaat leneen loo xamante ne nii xamoo leen ko ñun tey gis nañu ko saxaaba yi xamuñu woon avion saxaaba yi xamuñu woon oto saxaaba yi am na yenn bato yoo xamante ne nii xamuñu ko woon allahu akbar hélicoptère xamuñu ko woon métro xamuñu ko woon yooyu yépp tey ji yàlla subhanahu wa taala may nañu ko yàlla may nañu mbir yom te dañu koy war mu ñuy jële dëkk ak dëkk te yàlla waxoon na ko yonent bi bu yàgg ca makkatal mukarram ne ko dinaa bindaat jamono dina ñëw ma bindaat ay mbir yoo xamante ne nii yéen xamee yéen xamoo leen ko instant bii ñun ñu tolloog yi ñu xam insha allahu tabaraka wa taala siècle yii di ñëw ci suñu kanam suñuy sëtaati sët dinañu jamonoon teeg ay mbir yoo xamante ne nii ñun duñu ko xam loolooy waral alxuraan day ànd ak jamono ilaa yawmil qiyaamati mbokk yi bokk na ci xéewal gi ma gën a neex xéewal gi ma gën a neex ci sar wi yàlla subhanahu wa taala wax ñuko neena nee na may alquran mu nek xewal alquranul karim gi ñuy waji firi yàlla nee xewal ci xewal yi meen defal la ginnaw nak bi mu limé ay jën ni ma leen ko may mu nek yap wu neex waaw yàlla subhanahu wa taala wax na lool ci sar bi maa leen may ay jën may leen ay takkaay yu ngeen di tak seen soxla yi di ko takk ngeen leen di xol di contane yàlla subhanahu wa taala neena na yépp man yàlla maa leen ko may waaye xoola wa ma anzalna alayka alkitaaba illa li tubayina lilladi ixtalafu fiihi wa hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun yàlla subhanahu wa taala nee na ay muhammad maa leen baaxe mu nekk xéewal gu rëy goo xamante ne nii xéewal la gu leen di leeralal li ngeen di werantee di ci wuute yàlla subhanahu wa taala nee na alquran gi xéewal la gonte moom moo ñu ko jox waaye li gën a neexati ci saar wi li ci gën a neexati yàlla subhanahu wa taala wax ko mu nekk aw junj junj wu reelu yàlla subhanahu wa taala nee maa leen may ay soxna may leen ay doom ba ma yàlla leen ay sët xoolal yàlla détail yooyu mu ci dugg ah wa huwa alladi jaala lakum min anfusikum azwaja ah wa jaala lakum min azwajikum banina wa xafada wa razaqakum min at-tayyibaat afa bil baatili yuminuuna wa bi nicmati llahi yakfuruun yàlla subhaanahu maa leen may ay soxna ndeysaan waaw yàlla nag ci ay aayaam da ciy junju yàlla subhaanahu wa bu ne maa leen may ay soxna kon ñi am ay soxna ñoom ñu ci bànneex ku amul soxna yow nekkoo ci dara wallahi ndeysaan nekkoo ci dara da ngaa woye di wallahi yàlla nee maa leen may ay soxna yéemu ca de xoolal mu ni ma may leen ay doom te doom da lu koy waral ba mu judd ça veut que tamit yàlla day junj rek yemu ca de nee na ma may leen ay sët wa xafada ma may leen ay sët mbokk yi bu ngeen gisee sët jubboo ak maam loolu la doomu aadama li mu gën a ragal mooy dee bu ko yàlla mayee doom xelam day xaw a dal tuuti ni même bu ma deewee sax dina am kuñ ma xoole léegi nag bu demee ba am sët xelam day gën a dal day xam ni moom même bu deewee duñ ko fàtte looloo waral ngeen gis maam di jubboo ak sët yàlla nee na man maa leen ko may ba pare nag xoolal ci aaya bi yàlla wax ni maa leen may ay soxna may leen ay doom mu daan ne war a saxakum min at-tayyibaat xam nga lan mooy tayyibaat gi. foofu noonu xam nga nu ko déggee bokk man nu ma ko déggee ci biir aaya yàlla naan maa leen may soxna may leen ay doom may leen yu baax yu neex yi mooy nga am soxna su lay toppatoo yaa ngi dégg. waaye koo xamante ni ndeysaan amul kenn ku ko toppatoo bu xëyee mooy dem jëndali boppam ndékki day lijjanti reer bu guddee mooy lal boppam lalam yooyu yow nekkoo ci dara da ngaa waye di moo tax yàlla daal di jeexal ay bi daan wa razaqakum mina tayyibaat ndeysaan mu daal di pare rek daan ni afabil baatili yu'minuun yàlla nee na nekk ci ak célibataire ak baatil la ak neen la fa <laughs> bi ni'matillaahi yakfuruun allahu akbar kon mbokk yi nañ gaaw wuti ji ay soxna ñi am ñi amul nañu ami ji ñi am nañ dolli allahu akbar ah afabil baatili yu'minuuna wa bi ni'matillaahi yakfuruun mbokk yi bokk na ci saar wi yi nga xamante ne nii waxtaan na ko yittewoo ko moo lu jëm ci wàllu wax ñu muñ وولن تجيكو يباخ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون غيس يالله سبحانه وتعالى يو ييب واخناكو waaye muñ loo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon saaru yi nga xamante ni moom moo di sóoratu naxli saaru xéewal la comme niñ ko tuddee sóoratu naxli muy saaru yamb bu la neexee nga tuddee ko sóoratu ni'am muy saari xéewal te xéewal yooyu yépp insha allahu rabbi dinañ ci ñëw benn par benn ginnaaw bi nga xamante ne ni yàlla subhanahu wa taala détaillé na ko yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp jéggal suñu bàkkaar jéggal suñu rëcc rëcc lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu góorgóorlu leen ci alquran def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca asamaan jibril mu wóor mi andi na leen jaral sonn bu wér na